asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul al cheikh mouhamadul muntaqa al xalifatul aam li taifatil muridiya ñuy ñaan mu yàgg fi lool te wér te àggale naal yim naal yépp te ñu ànd ko ak moom waaye ci ndigalul jëwriñanam nag sëriñ ahmadul muxtaar mii toog ci jataay bi nekk ci bopp njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha ak njaboot gi nga xam ne yépp moom la jiite muy njabootu Daarul Xuduus ak njabootu Guy Mbind ci ndigalul jëwriñam tamit ak kilifteefu jëwriñam sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Sidi Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Amin bu ngeen gisee jataay bu tedd bii dangeen xam ne la daan xew at mu jot jege si na mu di màggalug ñaar fukki fan fani muharram di bis bi nga xam ne ci la Serigne tubaa ñibbisee ci dëkkam bii nga xam ne moo ko gënaloon ci pàkki suuf yépp ndax lam ca waxal boppam ne def koo sosoon rekk ngir jaamu yàlla kese gu dara raxut ndax moo daan ñaan naan allahumma aj al xayra ayaami yowma alxaaka wa xayra amali xawatimahu yàlla na yàlla nag ma defal bis bi gën ci samay bis muy bis may dajeeg yow ñaar fukki fan itam xarit nag ci la ko Cheikh Moustapha indee woon fii ci Touba ñu di ko màggal ba ren sëriñ Ahmadou nag di ko fàttali ñëpp. maa leen di nuyu leen sant ci bi ngeen wuusi si woote bi ngir leen fa dajale li tax ñu woote nag. ma jox sama kàddu sëñ Modou Bara wa rahmatullahi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul sunu kilifa di bàyyi ahmadul maxtar Mbàkke mi fi nekkal cheikh mouhamadul moustapha al karim ci jataay bu tedd jataay bu magg boo xam ne waxtu wu nu dajee fii ci kanamam ci ndigalam dana am lu muy fàttali àdduna bi yépp loola mooy lan bis bu mag bii nu dëgmal te mooy bis bi Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi taala alayhi ñibb séewan tubaa te dénkoon ko doomam jëm wóolu taalibeem ba euh, di Cheikh Mouhamadul Moustapha bis bi Baye Ahmadou Makhtar ànd ak njabootu Daaru Xuddoos gi yëpp ak ñi mbokkal Sëñ Touba yëpp di ko fàttali ndigal li mi ngi koy yeesluwaat ci kilifaam di Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi nakkal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan sun borom yàggal ko fii Euh, naal yi mu semb ngir liggéeyal ko Cheikh Ahmadou Bamba ci yoonam wii ci dëkkam bii ci lislaam mu àggale ko ci sago te ànd njaboot gi yépp ci daraja Cheikh Ahmadou Bamba Abdullahi wa Rasulihi sëriñ bi nee na mi ngi ànd ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha ji nga xam ni njabootu Cheikh Mouhamadul Lamine Baara dafay tabbi ci biir di yëkkati kàddoom di woote bis bu mag bisub lislaam di bis bii Cheikh Ahmadou Bamba dellu sewoon Touba te joxoon ndigal la Cheikh Mamadou Moustapha dafa dellu waan nag ren mi ngi war a daje ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août di bisub alxames dëppook ñaar fukki fan ci weeru muharram bii ñu bi ñu nekk nii euh, màggal gi nag ñu koy defee ci Touba gépp fépp fu murit nekk itam màggal gi àgg na fa waaye cëslaay la ak dàttub garab bi fii la ci daarul xudduus law ba àgg fépp nag ci biir ñooñu mi ngi ko ànd ak sëriñ cheikh Mbacke Madina buñ ko tuddee ci biir ka cheikh Mamadul Moustapha toftal ca sëriñ Abdourahman ak sëriñ cheikh Aliou Mbacke dana mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp bu ñu tuddee itam cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke bu moom sëriñ Mbacke Mouhamad dana mën a yóbbaale sët ak sa sëtaat yëpp. Euh, mi ngi soññi mboolem mbokk yi nga xamante ni ñoom la bokkal sëriñ Touba di soññi mbooleem ñu mbokkal maam Maaram Mbakke li ko tàmbalee ci kër maam Mor Diarra ba wàcc ba ci kër maam euh, kër kër maam Cheikh di soññi itam kër Cheikh Mouhamadul Moustapha wàcc ba ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada mi ngi soññi itam tey fàttali ñëpp ñi jabootoo ci sëñ bi li tàmbalee ci soxna Faatija Mbakke ba ci soxna May Muunatu Mbakke laylatul xadar di soññi mboolem seex yi aju ci yoonu murit bàyyiwul kenn li ko tàmbalee ci sëriñ aadama géey ba ci kër sëriñ Aïssa Dieng rawatina nag mbooleem cheikh yi nga xam ni dañoo aju fii ci kër gi di Daaru Xuddoos kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññ di ci soññ réew mi yëpp di ci soññ turuxu suufiyee yi nekk ci biir réew mi yëpp ak seenu njaboot fàttewul itam njiitul réew mi ngir cër bi mu am fii ci Daaru Xuddoos am ko ci moom sëriñ bi am ko ci réew mi ak mboolem ñi koy jàppale ci ab liggéeyam rawatina ñi gën a jege fii ci région de Diourbel ak département Mbacké bi soññee ci njàngum alquranul karim ñu yaatal ko te sellal ko te def ko addee cheikh cheikh ahmadou bamba abdullahi wa xadimu rasuli yi teg ca lu ñu mën ci xasaayitu cheikh al xadim yi ak lépp loo xamante ni loolu deme ne azkar salaatu salaatu ala nabi ak yu baax yooyu yépp lu ci waay man nga def ko te sellal ko tam bari tañ jox ko addee cheikhuna abdullahi wa xadimu rasuli yi bis bi moom boroom ci boppam moo waxoon ni tuubaa gii fi lay mujj ci dundam tey bi nga xamante ni loola jege si na mu dénk ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mu defal ko ko nam ko ko dénke woon moo waxal boppam ni akramani rabbi bila xuruji badani min watani li nafi li nafi ahlil mudduni akramani bila xuruji badani min watani li nafi ahlil mudduni sun borom daf ma terale man xaadim rasul du ma sama yaram du génn sama kër sama kër lay mujj mi ngi fii ci jumaa ji ci këram gi ci penku jumaa ji te nee na loolu su amee li ndax fi ëhlil mudd ni njariñ le loo xam ne dana law ba teq àdduna bépp ëllëg képp ko am njariñ delsi gii ma delsi Touba nekk sama kër moo lay jariñ te fo foo mën a nekk njariñ loolu dana la fa fekk loolu nag ci loxob ku tedd ku mu yar ku mu defar ba wóolu ko ci kanamam wóolu ko ci ginnaawam muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Karim ci loxoom la ko tegoon sëriñ moodu Moustapha lépp lu sëriñ Touba bëggoon nam ko bëggee woon defe nag ko ba def ci lu kawe njort kon yàlla nañ ko yàlla fayal guddi la goo xam ne képp ku fa fanaan di nga set ci ay bàkkaar ba mel ni bés ba nga ganee woon àdduna te loolu Cheikh Mamadou Moustapha moo nu ko leeral loolu nag ci jamono ji nga xam ne bàkkaar dafa yomb tilim tilim dafa yomb boo gisee foo xam ne genn guddi mën nga fa photo ba set wecc defe naa ne bu ñu la fa wóowuloon sax war ngaa góorgóorlu war ngaa sol saw la dem daw ngir jéem a fanaan yi ca dëkk booba ci guddi googee ñoo ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul di yëkkati suñu kàddu ci turu njaboot gi turu njaboot gi nag suñ ko waxee moo di tàmbalee fii ci ëttu Cheikh Modou Moustapha Al ba àgg ci ëttam bee di ëttu Cheikh Mouhamadul Amin te sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Mbacke Madina jiitu ci suñ ko waxee waxaale nañ ñëpp ak Cheikh Mouhamadul Moustapha bi nga xam ni mooy sa jëwriñ nekk la fa ci njabootu Cheikh Mouhamadul Amin Baara. Eh, daanaka sëñ du Bara li mu wax mat na matale na waaye nag ndigal dafa mënul ñàkk ñu jëfee ko. kàddu yi soññee rek ak kàddu yi yëgle ci bis bu sell bi nga xam ni bokk na walla mën naa ni mooy bis bi nga xam ni moo gënal ku tedd ci bisam yi ndax moo ko ñaan yàlla suñ boroom Cheikh Modou Moustapha mi nga xam ni moo ko jëkk woote lam ca wax ñëpp dégg nañ ko képp koo xam ne. ñëw nga fanaan fii màggal ko ni nga xam ni ni la ko sëriñ bi santaane di nga set wecc ci ay bakkaar ba mel ni bis bi nga gënee àddina tawfeex jooju ak ndimbal loolu nag war na fu ab jullit nekk fu ab taalibe nekk nga bàyyi say itte bàyyi soxla ya ñëw ànd ak sëriñ bi ba mu amee ko ni mu ko bëggee moo tax ci turu suñu kilifa yooyu ñuy soññ njaboot gi waa kër gi taalibe yi cheikh yi ñëpp àndandoo gën koo fonk gën koo yaatal ba sëriñ bi amee ni mu ko bëggee e, njaboot gépp nag ànd di bëgg tey ñaan yàlla suñu borom bàyyi Ahmadul Maxtaar mi suñu borom bàyyi ko fi te may ko ak wér ba liggéeyu bi nga xam ni yàlla dogal na mu teg ko ci loxoom mu àggale ko foo xam ne sax kawe na njort bi barakati rasulullahi alayhi salaatu wasalaam noo ngi yëkkati sunu kàddu ci tuuru mbooleem taalibey Sëriñ Tuubaa yëpp ci turu mboolem umma islamiya bi yëpp rawatina tarixa suufiya yi ñu bokkal réew mi ci bis bu rëy bii nga xamante ne ni bisub lislaam la di bis boo xamante ne ni cheikh Mouhamadul Moustapha moo waxoon ni juboo na ak boroomam ci képp ko fi fanaan boo xëyee da nga mel ni liir buy door a judd ci set wecc ci bàkkaar sëñ Modou moom mi moo waxoon ni yitte ju jar bañ a fanaan si Touba guddi mu muharram suñ borom sakku ko Cheikh Mouhamadul Moustapha moom mi moo waxoon ni ku yor yaari mbubb na la jaral jaay menn ma paase ko te ñëw moo waxoon ni it ku yor ma war a jox te dend koo xamante ni nii daa amul lum ñëwee jox ko te ngeen ànd ñëw róoyi la bëgg ñu fanaan si Touba moom moo waxoon ni guddi goog yii ñoo ñee àndoon ak sëriñ bi doon ko gunge si saa yu bis bi delsee fii la ñuy fanaan ku fi fanaan ak ñoom suñ borom jéggal la say bàkkaar kon noo ngi woo mboolem taalibe yëpp suñ borom moo warlul ci boppam ni su ngeen ma dee tudd danaa leen fàttaliku faskuru ni askurukum sun borom moo wax ni su ngeen ma woo ma wuyu leen bis bisum ñaan la addu oo ni as astajib lakum sun borom moo wax ni li feeg yéen a ngi jéggalu duma leen bëggal wa maa kaana llaahu li yu'azzibahum hum na suñ borom moo wax ni bu ngeen sante ma dolli leen la in sakkartum la azidannakum loolu lépp bis bi ëmb na ko moo tax ñoo ngi woo taalibey Sëñ Tuubaa yëpp ci bisub xéewal bi waaye ci jàng alxuraan nag lañ leen di woo ak jàngum xasida ak istixfaar salaatu ala nabi togg aw ñam joxe ko te jublu ca sun boroom def ci yërmaande fekki bokk yëpp fañ nekk ca barsaqul muhammadiya danañ ko amal itam ci jumaa ji na ko Cheikh Mouhamadul Moustapha daan defe ndax foofa la tàmbale woon liggéey ba muy jàngum alxuraan ca biir barab ba ak ci biir oromu jumaa ji ba ngoon ñu xat mu ko loolu itam ñu ngi ciy woo mboolem bokk yëpp guddi gi itam ñu ngi ciy woo bokk yëpp ca penku jumaa ja ak fépp ci dëkk bi rek lañ koy defe ñoo ngi woo daal mboolem jullit ñëpp ci yiwu rëy wii nga xamante ne ni moom la suñ boroom dëxëñ ci bis bu màgg bii nga xamante ne ni amuñu bis bu ko gën a rëy te it la sëriñ Cheikh Mbacke waxoon rek ni képp koo xamante ni ni kañaan muurut sa bëti xol nga xam ne bisu sëriñ Tuubaa bii moo gën a yeyoo màggal ci beneen bis bu dul moom kon noo ngi woo ñëpp danañ ci amal itam am bale moo xamante ni nii fukki fan ak ñaar ci weeru ut di ajjuma lañ ci woo mboolem taalibe yëpp ñu setal dëkk bi ngir teeroo ko gan ñooñi sëñ Moussa daa waxoon ni képp ko fi setal luy tolloog tàggum piccum perantaan suñ borom dana far say bàkkaar ndax nee na ñooñu ñëpp dañu fanaan si te daa bëgg bu dëkk bi set te moo ko tàmbali loon boppam booba sëñ Moustapha Gaye jëwriñu seex si nee na maa ngi ca jataay ba foofu yi kër sëñ Ablaat gi toog nee na fa la sëñ Modou toog wax leen ko ne lam jot a buub ci ci loxoom ci mbubam la ko ëmb Eh, keroog ku ñuy wax sëñ Mor saw for na fa ab duubal ba jox ko sëñ Moussa addiya kon ay bis la yoo xamante ne nii mu ngi dellu siwaat ñu yéene ñëpp aw yiw di ko woote